Bienvenue sur Salam Vision. Mesdames et messieurs, bienvenue. Vous suivez les programmes de Salam Vision. Voici une synthèse de l'actualité à la présentation signée Cheikhou Sarou. Euh, c'est maintenant officiel, les musulmans du Sénégal ont démarré le mois de Ramadan à partir de ce mercredi sur, l'ensemble du territoire national. Auparavant, euh, avant-hier, d'autres musulmans ont également commencé le mois de Ramadan. Le Fonds de résistance euh, a tenu, tient actuellement une conférence pour se prononcer sur le report des élections locales euh, qui est prévu en janvier 2020, en, en janvier 2022. Euh, D'autres sujets sont également évoqués au cours de cette conférence de presse. Massalikul Jinan, la grande mosquée située au cœur de Korban, lance l'appel à tous les musulmans, des étudiants, les femmes, les jeunes, de venir s'associer auprès de cette grande mosquée pour, euh, nous disons, euh, faire ensemble le jeûne, a déclaré le coordinateur euh, de cette grande mosquée. Nous allons nous rendre à l'étranger, c'est finalement officiel. Le président Patrick Talon a été réélu dès le premier tour à la tête du Bénin avec 86,37% des voix. Il devance ses deux adversaires de l'opposition. enfin le patron de Razawa au Mali a été euh, criblé de balles devant son domicile a été tué par ses assaillants mbokk yi asalaamaaleykum ñu tënk ko si kàllaama Kocc Barma euh, tàmbali nañu koor tey ci diwaanu Sénégal yëpp barki dem nag am ñoo xam ni euh, tàmbali nañu koor boobu di woo jullit yëpp ñu ànd ak dal ñaan yàlla ñu fekk ko ay at bare bare Massalikul Jinaan mooy grande mosquée nekk ci Kolda ñu ngi woo jullit yëpp képp koo xam ni Euh, même booy mën ngay jullit nga ñëw ñu ngi passé loxo euh, dog ko ko weeru koy foofu ca euh, Massalikul Jinaan ki a choix mooy coordonnateur bi yore mbirum national de résistance jëwoo si kujje politique opposition bi ñoom ñi ngi ñaaw élection locale yi nga xam ko dàq beneen jamono jamono ji nag ñu doon jàkkaarloo taskatu xibaar yi pour waajal siwal seen i programme université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru li ñu naan le euh, syndicat donc des enseignements du supérieur ñoom nag ñu ngi daan xaw nguur gi ñu fonk seen i euh, kaddu am na ay dëgër yoo xam ne ba léegi saafara bu ñu euh, fële ci dara kawe yi bitim réew ñuy doxantu fële ci benn Patrick Talon nag moo jël ndam li si premier deuxième premier tour élection présidentielle fële ci benn moom nag am na 86 virgule 37 pour cent moom nag moo raw ñaari opposants Euh, tekki fële ca Mali euh, patron bu Azawa ki xam mooy euh, jiite waaye képp fële ca Mali dañ ko boom buntu këram dem fële ca Mali yenn xibaar mbokk yi leen gërëm leen sant ñaan yàlla atum naataange si weeru koor mu nekk atum mu nekk weeru jàmm jàmm jàmm beneen yoon.